ministère bi ñu dénk wérgu yaramu askan wi jaare ko ci service national bu éducation ak information pour la santé ñoo leen di may seen jour bu jëm ci wàllu Covid 19. je vous remercie de votre attention. asalaamaaleykum mbokk yi. ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu alarba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru ut bi ñu nekk. ministère de la santé et l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci ñetti junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent test yi def téeméer ak ñaar ak ñeent ak juróom ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukki cas ak juróom yi nga xam ne ñooy cas contact ñooñu mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé maanaam ku jóge bitim réew waaye am nañ ci fukki cas euh, té euh, téeméeri cas ak fukki ak ñeent ñi nga xam ne ñoom ñoo ci cas communautaire communautaire yooyu mooy ñi jot ci mbas ñi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñoo ñooñu seen lim nii la tëdde ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom fukki cas ak ñaar ci yeneen région yi am nañ ci juróom benn fukki cas ak ñaar ba tey ci bilan bi juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent euh, fanweer ak juróom-ñeenti malade wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee ñeent fukk ak juróomi malade ñoo nekk réanimation juróom-ñeenti malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weer août mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak malaat yi ñu topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróom-ñaar fukki junni ak ñaar yu teg ñaar téeméer ak fukk ak juróom ñi nga xam ne ñoo jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom fukki junni ak juróom-ñeent yu teg juróom benn fukk ak ñett wér nañ si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 di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci mbir mi di sol seeni masque nu mu waree masque dafa war a muur démiñ ak bakkan di raxas seeni loxo saa su nekk ndox ak saabu walla di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité di ñaax tamit ñi nga xam ne ñàkkoogu ñu nañ dem ci bërëbu ñàkkukaay yi bu ñàkkoo ba pare nañu denc seen carte bañ a fàtte seen rendez-vous ngir tollanti ñaareelu dose bi te nañ wéy di jëflante wala di jëfee ndigal ndigal yi ñuy joxe bos bu nekk ministère de la santé de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm. bu leen fàtte aimer ak it partager ci seeni réseaux sociaux.